sëriñ Serigne Saliou jërëjëfati sëriñ Saliou ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sant ku tedd ki euh, maa ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a tedd ci nuyoo muy nuyoo islaam di nuyoo asalaamu aleykum wa rahmatullah seen mbokkum taalibe Ousseynou Kane moom Serigne Saliou Mbacké ah wax ji nag xam naa day gàtt lool muy ku nuy wax Moustapha Jaxate xam naa baaxoo woon sax di sàllalu nit ndax bokkul ci ma waaye nag ku xotti ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam warma la du dagal te sëñ Moustapha day li nga wax du ma ci sax dellusiwaat ndax bu ma ci dellusee damay yam ak yow àtte waaye wax ji nga wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day wax dëgg yàlla rëy na rëy goo xam ni bépp xolu jullit bu mu naqariwut rek daray leerug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkul ci yow te wax ji teguwul ci xam-xam teguwul ci ak maandu waaye mi ngi tegu ci ak tooñ ak offense jullit ñëpp donte gis naa sax lenn ci ñi ni tudde boroom xam-xam ñu lay jéem a défendre di jéem a indi ay ahadis bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam benn saxaabi ñëwee ci moom ni ko ana sama baay mu ni ko sa baay ma nga sawara muy dem mu war mu ñëw mu ni ko inna abika wa abi fi naar sa baay ak sama baay ñu ngi sawara booba jubluwu ci abdullahi abi talib la ci jublu jubluwu ci woon abdullahi ndax abdullahi mi jur ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam fekkiwut diiney islaam déedéet julit la woon nag ci diina jam nekkoon waaye fekku fi diiney islaam fekku fi diiney islaam ndax bi yenn saa di woote loo gàtt-gàtt xam-xam di nga xam ni fekk na abdullahi dellu ca boroomam fekk na amina dellu ca boroomam te alquran def ni wa ma kunna muazibina xatta nabasa rasul wa ma kunna muazibin xatta nabasa rasula euh, yàlla du mbugal aw xeet lu dul daay yónni ci ñoom ab yonnante maanaam nit ki mënuloo ko corriger te joxoo ko leçon yàlla du yónni ab yonante lu dul daa yàlla du du du du mbugal aw xeet lu dul daay yónni ab yonnante ci ñoom te diine ji diine islaam nga xam ne mooy diine dëgg bi ko yonent bi sallallahu leen di woote fekk na ay waajuram fàdd kon ñoom fekkun fi islaam ba lislaam di leen àtte ba leen di dugal sawara loolu njuumte la ñaaral ba loolu sax waxu waxu saayir la sax donte sax euh, xaqiqa bi dëgg dëgg dëgg mooy ñoom dugg nañ ci islaam ndax yéen saa salaam tiim na bàmmee seeni bàmmeel dekkal leen dugal leen ci islaam bàyyaat leen tëdd dina la xaar yowmal xiyaam loolu moom siiw na ci histoire la ci gën a gàtt sax moom mooy wax ji rëy na rëy goo xam ni foo ko takk wees na ko ndax waxuma la yenn bi sallam mi nga naan ay waajuram di jaar ci waajuram di leen méngale say waajur waaye keroog bi xalima euh, xalimatu waree mbaamam moomu di ñëw màkka pour jël si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, pour nàmpal ko moom xalimatu mbaam mi xalimatu waroon fuurit yi doon génn ci mbaam mi fuurit yi doon génn ci gémmañu mbaam mi fuurit yooyu mën naa ram saw askan yépp yaa koo bokkal ak koo yaakaar waxuma la sax say waajur sa ndeeg sa baay waaye koo bokkal rek ku taq ci yow ku nekk rek bu jotoon ci fuuritu mbaam ma xalimatu ma doon nàmpal yonent bi waxuma la abdullahi de waxuma la amina xalima mi waroon mbaam mi mbaam ma mu waroon fuurit ma ci doon génne boo ko peesee mën naa ramm lépp lu taq saw askan ak loo bokkal waxuma la nag sa ndey kon wax ji diis na diis goo xam ni rëy na rëy goo xam ne dama la ci conseillé di la ko ñaan ngir jëmmi ku tedd gi mooy nga bañ a diis nga tuubal jullit ñépp ndax maa ngi lay seeral man maa jël engagement di la xamal ni la wax jii de boo ko tuubut boo ko tuubut corona bi du la fi bàyyi mbaa ba la fi bàyyi itam dootu am njariñ kooku maa jël engagement wax ko maa ngi giñ ci sëriñ Salifu Mbàkke ni sëñ Moustapha Jaxate wax ji nga wax ci yonente bi boo ko tubul ba àddina yëg ko corona bi du la fi bàyyi mbaa bu la fi bàyyee itam dootu am njariñ kooku maa ko wax ndax rëy na lool te wax ji dis la wax ji metti la yonente bi saa sallam waxuma la jëmmam mais ay taalibeem dañuy génn nit sawar bi leen yóbbu àjjana ay taalibeem sëñ tubaa taalibe yonente bi la Cheikh Ahmad Tidiane yi taalibe bi yonente bi la Cheikh Abdou Qadir Jeylaani taalibe bi bi la ñoom ñoom ñoo ñooñu di adressé woo taalib bi yonent bi sallallahu alayhi muy ku tedd ki moom ku tedd ki seeni taalibe ñoom dañuy jëlee ni sawar yóbbu leen àjjana te ñu ngi koy defee ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon naka la yonent bi ay taalibeem dee ramm ay nit moom te mënut a ramm ay waajuram ba ngay jël ay waajuram di leen yóbbu sawara ak di leen di leen gënale say say kii te yow sax da ngaa des xam histoire ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abdoulaye dañ koo préparé ak Amina Abdullahi ak Amina dañ leen a préparé jiitu leeru yonente bi sallallahu alayhi wasallam di jaar ci ñoom ndax leer goo xam ni jaamu na ya jaamu na yàlla ci xudra ay milliards at yàlla doog ko feeñal ci ci ci ci ci doomu aadama googa leer du leer guy jaar ci n'importe quel nit kon euh, wax dëgg yàlla euh, bu ma sañoon bu ngeen dee def seen politique euh, ak yooyu ngeen di défendre rek diw daa wéyal ak diw wéyalawut ak yooyu ngeen di nekk noonu nga xam ne yéen ci terrain bi wax dëgg yàlla muy seen mbir moom xaw ma ci sax lu bari duma ci dugg itam ngeen nekk ca rek waaye nag bañ cee dugal ñu tedd ñi wala nga ciy dugal yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax wax ju saltee nii di ko méngale ak seen yooyu ngeen nekk loolu doy waar la lu metti la maa ngi lay ñaan nag man Ousseynou Kane wax jii nga tuub ko ko tuubul dey danaa ñaaw njott ci sa jëmm ji ni am njariñ ci kaw suuf aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu